salaamaaleykum mbokki internet ñi seetaan rawatina ñi safoo suñ site internet yi di Refane TV ak Bawol Média euh, production tey nag ñu ngi fii ci réew Mawo Tembo ñu am fi benn cas boo xamante ne nii. kenn ci ñi nga xamante ne nii ñoo dëkk fii euh, mu réer ay mbokkam gisuñu ko mën nañ ne depuis daaw ba ren gisuñu ko euh, tey nag ñu ñëw taxaw a toog ak ñi nga xamante ne nii ñoo di ay mbokkam euh, kooku mu ngi tudd Abdoulaye Diouf ñu toog ak ñeent ñi nga xamante ne nii ay njege ñaareem lañ xam naa dañ leen di bàyyi rek ñu nuyoog mbokki téléspectateurs yi leen di seetaan sëñ bi maa lay nuyu. waaye ñu ngi lay fay soxna si di la siyaar di leen jaajëfal di leen jéggalu di leen balu àq leen ñaanal yàlla. suñ borom yagal sen taxaway guddal sen fan defal len ko defal ko mbolim julit ah di len balwat ak dagit ci ndimbal li nga xamanteni ni dik ngeen pour dimliñu ko waye suñ borom dafa dogal dañ ko sekk ca dañ ko bok parce que mbir mi suñu mbir la waye sen mbir la waaw di len jaajeufal bu baax euh, manam di len bége dal bu baaxa baaxa baax waaw suñ borom nag dafa dogal euh, tout tank bi Euh, wax deug sama doomu nijaay la Ibra Diouf mi rakam la soxna magam la sama sohna nijaay si di ya nogay fal yaayam la wax deug dañ am ak jaxlé gu metti parce que xalé bi xalé bi fi la fi la mage wax deug si yalla daan dem didik nekkon sow ndakaro wax deug dawul tok 15 jours mbala discours yoo xam te déggante wut ak ñun ak i bokkam ak i magam ak ay papam ak ay yaayam waaye nag guléet dañoo toog ba wax dëgg si yàlla daal mu dem tàggoo fi wax dëgg gëj a gëj ñuy di am xel yaar ak a ñàkk xel yaar wax dëgg si yàlla affaire bi dem ba xaabaabal wax mu mu dem ba at ak danaka ay weer maanaam ñu xalaat ci fu ne xëncu ci fu ne woote wut mënoo def nen mbala nga woote fen ba dégg ko ñu am ci jaaxle lool ca wax dëgg si yàlla moom nekku fi ca mënta nit boppam ñu nit wax dëgg si yàlla ñi nga xam te ay kilifaam lañu ci ay mbokkam lañu it wax dëgg affaire bi dem ba sol nu mbub vraiment traversé ñu indi ñu xalaat tere ñoo nelaw tere ñoo lekk tere ñoo naan ba wax dëgg yàlla daal pexe mu ne ñoo ngi koy def pour nu mu niitoo parce que wax dëgg si yàlla bëgg nañ koo gis ca bëgg nañ koo teg bët ca bëgg nañu wax dëgg si yàlla xam fi mu ne ca it ñu lot ci lool ba tax na ñi mel ni yéen ak yéen ñi ak ñi ñeneen ñoo ngi tàllal loxo képp koo xamante ne nii mën nga ñoo dimbali ngir jëmm yàlla euh, pour nu mu niitoo ba dellusiwaat ci bokkam loolu moom wax dëgg si yàlla ñoo ngi ciy tàllal loxo yéen ak képp koo xamante ne ni maanaam ku mel ni yéen la. parce que wax dëgg am nañ ci jaaxle ca it euh, am nañ ci naqar ca am nañ ci njaqare parce que wax dëgg si yàlla it nekk ak nit wax dëgg si yàlla nga nekk ak moom ba mu mel nen it nga toog ba gisatoo ko it ci jamono ju rëb ji nga xam te it lu ne la ngay dégg ci rajo yi lu ne ngay dégg ci tele yi lu ne ngay déggit lu neex a dégg ak lu naqaree dégg wax dëgg yàlla lu mel ni dal ci sa kaw it vraiment day metti ci day tiis. day metti ci day tiis lii moo nekk ci ñun moom la ñuy dund ñun bokki réew maaw gépp rawatina gox bi ñu naan Tembo Juuf xam nga parce que ñun ñëpp benn bopp la ñu ki dem ni ñun ñi toog fii xëy na ñun la suñ borom dogal ñu toog fii mais Tembo gépp amul ku ku amul yéene yi maanaam ni ñu ko yéebaanee ak ni ñuy ñaan yàlla ak ni ñuy talalee suñ borom subhanahu wa ay loxo pour xale bi dellusiwaat ci mbokkam képp kuy yeewoo réew maawo rawatina gox bii di Temb Juuf képp ku fi nekk rek yéene bi ñu am nii ak li ñuy def nii am nga yéene bu ko raw xëy na nag ñun la yàlla natoo lii nii ñu koy defagun waaye xëy na ci kanam balaa boobu yàlla na ko yàlla nit waaye xëy na am na ñoo xam te am nañ yéene bu mel nii mbala bu kawe lii xam nga am na ñoo xam te am nañu yéene boo xam te taxawee nañ ko ba pare parce que fi mu nii kenn toogu ci muy chef de village bi muy ñëpp chef de quartier bi ñëpp amul kenn koo xam te fi ne nii maanaam dem ak xale bi traversé wu la metti wu la naqar na naqari wu la ñëpp la metti waaw ñuy ñaan nak euh kep ko xamanteni ak fu waay nekk rek partout dans le monde entier fu waay nekk rek di sétane émission bi di déglu kaddu yi foko man sanni rek ak foko man agal rek ak nit bo ci man rek pour xalé bi nitu ñun ñong lay talal loxo parce que wax yalla julit bu dem la doomu jambour ju dem la gor su dem la suñu doom ju dem la suñu doomu nijaay ju dem la metti nañu naqari nañu bu wax dëgg si yàlla daal mën naa ne lekkuñu mu rees nelawuñu mënuñoo yaatu mënuñoo dagit ubbeku googu ubbeku parce que it am na loo xam te as gor ab julit ab taalube da ko mënta nekke wax dëgg si yàlla di firi loo gëm gëm gëm gëm gëm gëm yàlla it am na loo xam te bu ko suñu borom dogalee ci yow wax dëgg si yàlla it noo mën def it di nga ko sentir waaw parce xale bi xale bu baax la waaw jërëjëf sant leen gërëm yal na yàlla yàggal taxawaay ndax danoo am njàqaare danoo am naqar danoo am tiis lekkatunu ba suur naana naanatunu ba màndi nelawatunu ba yaandoor ndax ko am sa nit mu dem daaw bare ren doom joo jur ndax dëgg yàlla metti na ku nekk képp ku doon doomu réew Maawa Temb rek metti na la torop metti na la lépp nag wax dëgg yàlla noonu ko bàyyi ci seeni loxo ngeen jàppale nu ngir yàlla ak yonent bi ba yàlla niital na ko mu feeñ ci barke yoon wal màkk leen di sant leen gërëm jërëjëf. Euh, yaay Ndogoy euh, ñu bëggoon a xam kii di Abdou Lahad mu ne ñu ne sa doom la ci yow ñu ñu bëgg a xam yan kàddu nga mujj a waxante ak moom bi nga koy mujjee dégg. bi muy dem wax dëgg yàlla jàmm ak salaam la fi tàggoo jàmm ak salaam la fi tàggoo gontu dem mu ne ma bu ma demee dinaa leen woobu bu soobee yàlla soob yonent bi jël numéro magam jël numéro rakkam. jël numéro soxna magam bi tàggoog nun ci jam ak salaam depuis boobu ba léegi nag mënuñoo woote jot ko magam bi mu doon woo mënu koo woo jot ko mënatu koo woo moom ci boppam depuis boobu ba léegi benn téléphone boo xamante ni yaakaar nga ne boo ko boo jëlee numéro nga woo ko dina la wuyu ba léegi wuyuwut kenn da ngay woote nee du wuyu depuis daaw ba ren nag wu fi mer wu fi naqat wu fi dara nag jàmm ak salaam la fi tàggoo Euh, te xalaatu ngeen ne dafa amoon kenn koo xamante ne nii amoon ak moom lii di problème wala déet. amu ko nag kenn problème moom wax dëgg yàlla fii ci kër gi amu fee kenn problème amu ko kenn moom. est-ce que def ngeen ay gëstu li ci lim ci moom ba xam ndax euh, fi mu nekk euh, ci fan la nekk ci loxo la nekk wala déet. ah mu ngi gëstu xam nga léegi daanaka gëstu bi moom boo demee ci kii dalay wax lii kii dalay wax lii te loolu lépp xam nga day gën a jaxase sa xel. day gën a jaxase sa xel ndax mën ngaa dem ci nit mu ne la mu ngi ci jàmmam waaye xam nga bu ñu la ne mu ngi ci jàmm itam te gisoo borom wootewul ñëwul wax dëgg yàlla jàmm ji moom loolu mënoo koo dégg moom. moom dafa doon nit koo xamante ni nii day dem lu yàgg mu ñëw wala mosula def lii. moom bu demoon itam daaw ji daaw bi mu demee yàggoon na mais doon na jokkoo ak ñii waa kër gi doon na leen woo téléphone ñuy xam ci lu mu nekk ba ni mu ñëw yàlla indi ko mu ñëw. ba ni mu delluwaat nag demam gii nag moom moo nu jaaxal ndax dem gi wootewul te kenn du ko woo jot ko te ñëwul. amul ñenn ñoo xamante ne nii ay njegeñaaleem la maanaam ñoo xamante ne nii jox nañ leen ay leeral ci moom. ku ñu mënti laaj ku dëkkoon nag moom nekk ak moom néeg buñ la laajee da ngay wax ne man ba mu tàggoo ak moom yàgg na ba ñu tàggoo yàgg na daaw lañu dëkkoon wala daaw jéeg lañu dëkkoon xamuñu ci moom dara. mais am ngeen kenn koo xamante ne nii ci ay xaritam moo ko génnoon a jege ngeen mën di ngeen déggante ak moom laaj ko kii di Abdou Lahat wax dëgg yàlla benn xale bu góor daal la laajoon moom danoon ngeen may ma tuuti bi ñu ko laajee tam bi ñu delluwaatee laaj ko mu ne moom daal wax dëgg yàlla xamul ci moom dara xamul ci moom dara. maa ngi lay ngi lay fay soxna si di leen jëlal jëfal yéen Média TV ndax am amuñu seen pay parce que dérangement bi mënoon naa metti mais alors que méttiwut. ñu di leen taalal loxo nag di leen yaakaar parce que jëm ji dem man sama doomu baay la bokk benn baay maanaam tabaski daaw bi mu jotee bi mu ñëwee fi la nekk ba tamxarat jour bi muy dellu keroog mook sama soxna ñoo ànd mu jël sama numéro téléphone jël numéro téléphone soxna si ñoo ànd ba ndakaaru mu wàcc tàggatoo ak moom ne ko dinaa la seet si booba tey nag après daan na dégganteeg ñi par WhatsApp ndax man numéro bi ma yor WhatsApp. ñi doon yor whatsapp mu sama doom baay yi daan na dégganteeg ñoom saa ma ñëwee ñu ne ma laat envoyé na fi audio nuyu na leen man ma yor numéro mais ma tante su ma ko wooy du ko jot après yeneen tantaam yu bokk ak moom ci wàllu yaay dal di ma wax ne ma laat numéro bi boo ko wooy doo ko jot ma ne ko man loolu moo ma ci jaaxal mais jamono boobu xëj na confinement bi tax te moom nitu marché la woon ndax da daan dem ci marché yi ci luuma yi léegi nag bi ma ko wooy du ma jot ci laa jóge dox ay gëstu laaj yi mu ne même groupe bi mu bokkoon whatsapp quitté na ba ci ay mbokkam reefan ne ma quitté na ma ne leen léegi nag kon fi mu nekk xëj na lëndëm na ñu def ci ay ñaxtu mais xam nga comme li bi wax seet yi dañ la naa nii la kenn la nii la mais lu mu ci mën di doon gis ko wala nga déggante ak moom téléphone moo lay doy ndax même bu nekkee ci jàmmam ak salaamam soxla nañu kàddoom pour mu woo ñu ne ñu ñu ngi ci jàmm rek ñu xam ne xëj na kon liggéey yi moo ko yóbbu mais comme jamono wóoratul ñu bëggoon nag def ay gëstu jaar ci ñu mel ni yéen ba xëj na yàlla def ñu gis ko wala ñu am ku ñu ko gisal waaw loolu moo taxoon ñu dugal photom ci internet bi après dagg teewlu média TV mu ñëw ñu waxtaan ak moom ba pare nag bàyyi la ci des ci loxoy yàlla ñu xam mais laat moom wax dëgg yàlla nit la woon la koo xam ne amul histoire amul ay loxoom it téyoon na ko mosu ñu xam ci moom jël wala leneen man bu nekkoon kër ga sama néegu rek lay fanaan ñooy bokk néeg ba ba sat ñu bokk ndékki man sama jabar moom la gën a déggool ka ni sax man man dama xaw a rus mais bu nekkee jigéen ñi moom lu ne mën na ko wax nit la ku amul benn problème waaw wax dëgg yàlla ku yaatu la woon amul benn problème jotewut ak kenn itam. waaw maanaam moom diire na nag lu yàgg bi mu demee muy déggante ak ñi WhatsApp man daaw ma woo mais daan déggante ak ñi WhatsApp mais man maa ma sa am crédit may ma soxla ko di tenter numéro bi ma tenter numéro woo ko mais du sonné demul. ma vérifié ko ay maintes fois demul après ci laa doog a ñëw ci ñi mu doon dégganteel WhatsApp ma laaj leen ñu ne ma même WhatsApp bi nag dematul. ci laa doog a jóg nag ma def ay jàngat xamal leen nag kon kooku xaj na daa nekkatu ci ndax dama jàppoon na xaj na confinement bi mën na ko fekk mu génn àll comme nitu la ñu tëj ko foofu du mën a ñëw xaj na it fa mu nekk ndax am na ci diggante yooyu pour nga woote jot fa problème la ci loolu lañ sukkandiku mais léegi nag dañoo xam ne nii léegi fu waay mën a nekk fu ñu la mënta jotee téléphone warul mën a am parce que du donte dafa changé numéro it war na mën moom yóbbu na suñuy nombre de call kon war nañoo mën a woo moom mais loolu lépp amu ci. non wàllum police nag wax dëgg yàlla yëngooguñ ci parce que démb rek maa ngi jokkoo ak sama mag bi nekk Ndakaaru mu doon ma wax ne ma man instant bi comme dugal naa photo yi léegi damay bàyyi néggandiku ay fan su fekkee ni benn nouvelle feeñu ci ñu doog a jàll ci police jéem a def ay gëstu mais nag démb laa ko wax mais moom dafa wax ko comme nii defagul gëstu bi. léegi nag bu ñu jàllalee lii comme photo yi jàll na ah bu ñu gisul résultat ñu doog a dem rek dem police def recherche waa fi mu dëkkoon ci dakaar ñi mu dëkkaloon contacté nañu ak ñoom mais dafa yàgg a jóge foofu maanaam moom yàgg na jóge foofu moom baasam yëpp presque daawul toog moom foire bu demee nii mën na fa def lu yàgg te ñoo ñu it et puis dëkkatul ak ñoom ndax bi ñu ko laajee nee nañu moom yàgg naa quitté ci néeg boobu nekkatu fa. ndax ñoom woo nañ leen téléphone ñu ne après ñu nit luñ ci xam rek wax leen mais moom wax dëgg yàlla ñu nag yéen ñoo ci yem gisatuñu ko. waaw wax dëgg yàlla maanaam gëstu sax moo tax ñu jóga ndax bala ngaa dugg ci des fois faw nga gëstu mais bi ñu gëstoo it ñii dañ ñu naa fi mu nekk leer na ñii ne fi mu nekk dafa lëndëm waaw mais actuellement moom waxaguñ ñu ne moom faatu na mais comme comme fi mu nekk dafa lëndëm comme saaru kidnappé lañ lay wax ne moom la nekk xam nga loolu it ba tey bu la ko kii waxee kenn la fi mu nekk mu ngi ci jàmm xam nga léegi wax la yooyu dëppoowul ak xëj na li nga xamante ne ni moom la nit soxla ndax nit liberté la soxla nit dafa war a am liberté di dox ci ay bokkam di wax ngay dégg mais nit bu noppee am liberté rek lijjanti ko day jot wa bobu bobu jamono xam nga mom suñ dom bay la mais bobu non dañoo mom dañoo amone ñaari kër léegi benen gàlle bi mu dëkk mom fi la invité waji man bima ñëwé ay boru 6 h la ñëw jënd ay ginar ci sama jabaru mak ne ne soxna yi pour ñu défaral ko reer dafa am gan bobu man maay nekk ci albi bima ñëwé ay boru timis ma laaj la ñu ne laat dafa am gan mom lañu défaral rër bi rër bi paré muy yobbu ko fek fi waji ñu nuy wante mu ne ma kii sama xarit la Aliou Ndiaye la tudd boobu sama papa mu ngi toog léegi léegi bi mu reeree ba pare pour ñun xaj na day bàyyee mu dall mu ñëw nuyoo si kër gi mais wax dëgg yàlla waa ji jotul ak si kër gi waa ji jotul jotul leen nuyu yéen nga xam ne ay yéenay doomu baayam te jotul a nuyu ki nga xam ne mooy papaay Abdoulaat jot na nuyu mais papaay Abdoulaat xam nga dafa génn àdduna dundatul boobu moom mu ngi toog moo nañu kii xaritam la cees la dëkk maanaam da doon woo Elaat Ndakaaru mu ñëw cees ñu bokk toog papaam na ko papaam maanaam comme niñ ci xamoon la ci xamoon ndax papaam dafa teeloon jóge ndakaaru maanaam bi muy xam waa ji di am ak moom connaissance moom yàggul dara feebar daane ko mu si fii ci kaw feebar bi noonu ci la ko waa ji ñëwee fii pour seet si laat mais yàggul dara paa bi dese de léegi nag laat bi mu ñëwee saraxu paa bi bay dellu après ñëw na fi ba demee tamxarit mu fii la quitté daal di dem léegi nag dañu jàpp ne xëj na comme gaañaan boobu noonu waayam la woon xëj na mën na nekk daa da ànd ak moom ci foire yi ñuy ñuy dem Cees ak yooyu ndax moom daaw ñu tàggoo la wax xaritam la non non parce que kooku wax dëgg yàlla verre yi mu fi agsi guddi la fi agsi te jotul agsi ca kër ga te xam nga ki nga fekkit muy gan nga nuyu ko kenn waxu la kii fii la dëkk wala kii nii la tudd lut dañ la ne kees la dëkk rek léegi ngay jàpp ne day ñëw sa kër nuyu si la bët sa matinal bi fajar ay 6 man ma génn di dem ci àll bi dajeeg laat mu dal di ma ne sama gan googu laa gunge woon mu ñibbi ma ñëw di waxtaan ak sama papa mu ne ma kooku de xaritam la Thiès la dëkk Aliou Ndiaye la waa ji tudd mais Thiès la dëkk ma ne ah, mu ne ma waaw ci la ko sama sama yaay bi ne ko est-ce que loolu wóor di jóge ndakaaru ba Thiès pour reer loolu jaru ko parce que boo xoolee mu ne ko ah kooku de xaritam la wax dëgg yàlla yàgg nañu wax dëgg yàlla loolu la ñu mujjee gis. yow yow gis nga waay ji. non waay man gis naa ko nii mais guddi la wax dëgg yàlla duma la ne bu guddi laa ko gisee doo ko xàmmee. non actuellement su ma ko gisee mënu ma ko xàmmee ndax guddi la ay weeru huit heures neuf heures te xam nga jamono boobu noonu gàlle bi mu ne courant amu fi. nga fekk gàndag mu toog rek doo am ci moom benn nemmeeku bi wala benn kii bi wala jël lampe di ko mais actuellement su ma ko gisoon du ma ko xàmmee non par exemple dama koo fekk mu toog wax dëgg yàlla ñuul rek laa mën a xam ci moom xam ne kii nit la boo xam ne nii joolul lool mais dafa ñuul mais turam naturel moom Aliou njaay la waa ji tudd wax dëgg yàlla ndax moom moom laat moo ñu ci leeral ne sax Aliou njaay la tudd mais ñun xamuñu woon waa ji wax dëgg yàlla moom moo ñu ne xaritam la Thiès la dëkk te Aliou Ndiaye la tudd waaw Thiès la dëkk moom moom xaritu laat la woon ndax kera bi mu ngi Ndorong la génn Ndorong la ko gunge moom laat mu ngi dëppee dëkk bi ñu naan Ndorong foofu la dëppee bàyyi Aliou Ndiaye mu dem Toubatul jël oto dem Thiès loolu laa ci mën a xam moom comme information. non no non moom ñëw ci après bi dëj bi passé man nee naa laat sa waajooju ngay àndal du xarit parce que li dëj bi di di rëy rëy man gisuma waaji tànkam tegu fii. dëj bi li muy rëy rëy gisuma laat am benn connaissance boo xam ne ñëw na seet si ko man nee naa ko ñi ngay àndal man xawma leen mais suñu dee xarit nekkul xarit bu doon lool. non non kenn déplacé wul jóge Ndakaaru pour laat wax dëgg yàlla ñun ñi ay doom baayam la ñu ñoo fa nekkoon nekk ci dëj bi ba ba mu fin ba yàlla def jam am ci dëj bi alhamdulilahi rabil alamin mais laat amu ci benn contacté boo xam ne ni mën na leen a kii sama la boobu ñoo bokk ci marché yi déedéet kii di jëkkëram bii ceena bii di sama mag moo daan dem foire des fois ne ma laat daje nañu foire ndar nayu na leen mais kooku bi mu noppee dem foire ak léegi amatuñ ci laat nouvelle wax dëgg yàlla. comme ma dellu siwaat di laase message euh, Aliou Ndiaye mi nga xam te maanaam moom la yàlla dogal magam yi ne maanaam xaritam la daana ko éviter kees mu jóge dakaar di ñëw kees daana ko fa éviter pour muy ñëw di reer si Aliou Ndiaye moomu aussi ay mbokkam ne nañu fekk si na ko fii ci réew Maawo benn yoon ci këram gi nga xamti moom ak papaam rek ñoo fa ne. ñu lay lancé appel Abdou Lahat moomu dañ ko tegatul bët. dañ koo gisatut it instant yi dañ cee am ak jaaxle dene mes xam nga boobu ba léegi fu ñu xam nu ñu mën a def noonu niy def pour gis Abdou comme dañ ne nag xaritam nga woon bu fekkee ne lii ñuy def nii pour di ko xëncu agsi na ci yow ba nga gis ko bu fekkee ne xam nga Abdou Lahad ca mu dëkk réew maawoo ca nga seet si woon ko ca mu doon sa xarit bu dee ci foire yi ngeen xamante bu dee dakaar ngeen xamante fu ngeen mën di xamante bu fekkee ne am nga ci pexe ci am nga ci benn solution ca gis nga ko ak foo ko mën di gis boo ñu ci mënee dimbali nga dimbalu ñu ci. parce que réer nañu ca fi nii bu ñu sañoon gis ku ko xam mbala ña ko xamoon ak ña mu loon ak ña mu am lantee woon ah ca xamuñu leen ca ñoom ñu mën a xam ci moom dara ñoo ñooñee ñu ngi leen di laase appel di leen talal loxo fuñ ko gis rek tane ñu ci dimlu ñu ci. luñ ñu ci tane it ñu dimlu ñu ci surtout yow Aliou Ndiaye mi ñu déclaré ne. ab xaritam nga woon loo xam ci moom ci xamuñu ko ci moom nga dimluñu ci bokk ma mënee xañ ci boo dégloo lii ñun ay bokkam yi nga fekk si yi nga fekk woon réew maaw fii jaax leen nañ ci ci suñu bopp ubbu nañ ci suñu doom nee na mes dem na ñoo ngi ñaan yàlla nag mu niitu ca yàlla nañ ko suñu borom niital asalaamaaleykum wa rahmatulahi a wa barakaatu. Abdoulaye Diouf de wax dëgg séeréer yu baax laa mën a andi si moom parce que sama rak la sama doom baay la sama rak la sama doom baay la wax dëgg yàlla def na ma noo xamante ne nii xëj na sama rak bi ma bokkal ndey sa def ma noonu parce que fu mu naa ne dem bu man lay némé ko whatsapp doo daw ñu won tok journée wala deux jours de déggante wuñ dañ daan déggante tout temps ci lu mu nekk tamit daf ma daan wax maay ngi sangam man tam ñuy déggante may jotali sama rak bu góor bi xamal ko ne ko laat neuy na di wax sama yaay ni mais depuis bobu ba légui daal awma ci mom ben information bo xamante ni nii mën na maa jàpp ne laat may ni suma ko wowe duma ko jot suma duggé whatsapp bi tam duma ko jot mu upp sama bop bi trop ma leen di ñaan yéen ñi nga xamante ne nag yéen a yor wàllu gëstu bi moom maa ngi leen di tàllal loxo di leen dégg loxo moom bu baax xam ne sama rak mu wax dëgg yàlla de ma metti na ma trop parce que du nitu ay du nitu problème jam ak salaam kaf ak ree fu mu nekk day kaf day ree amul benn problème boo xamante ne ni doomu aadama mën naa ñëw ci moom njor xanaa baax yaru tey loolu rek lañ ko mën a seedeel moom ñu leen di tàllal loxo rek di leen ñaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam leen si mën gën gëstu sant naa leen bu baax maa leen di jaajëfal bu baax Baol Média production ak Refane TV waa tey ngeen fekkuñu ñu fii nga xamante ne moo di réew Mawo euh, ma nekk chef de village bu réew Mawo 1 ki nga xamante ne moo fi réer itam dëkk réew Mawo 1 ci quartier bu ñu naan Tembo euh, mi ngi tudd Abdou laxaat Diouf comme ni ko magam ji waxee léegi tamxarat biñ ko jàllee ba bët set la dem ba tamxarat dellusiwaat te teguñu ko bët boobaak léegi def na un an ak ay fan Abdou Lahad Diouf moomu euh, yaayam mi ngi tudd say ñing euh, papa mi tam mi ngi tudd Jibril Ndongo juuf boobaak léegi wax dëgg yàlla tiis nañu euh, ndax fu njaqare di tollu rek bii nii romb na fa fu tiitaange di toll itam bii toll na fa parce que boo amee sa doom mu def at te tegoo ko bët dégoo ko téléphone faw di nga di tiit di nga jaaxle di leen wax rek ne leen ñunu réew ma man mi toog nii nekk chef de village beeg njaboot geeg ku ngeen gis ak ku ngeen gisul yépp ñoo bokk naqar bi ñoo bokk tiis bi ndax dim bi ma ko jotee jot ci suba dama ñëw taal sama moto dem ba ci borom eh, magam si seen kër ne ko ak nu mën def fili ak ngoon il faut ñu am média yoo xamante ni ñu fi ñëw ñu mën a wax li nga xamante ne moom la ñu gis ndax Abdou Lahad nekk na tuut tànk boo xamante ne nii man mën naa ne sama keppaar la yaroo ndax bi muy nekk tuut tànk daje nañ ci àll bi mu nekkoon koo xamante ni ku yaatu la ku oyof la koo xamante ni dara du ko booleeg nit masuma koo ate ci kaw suuf masuma ko ate ne Abdou moo tooñ ci wala lii kon kooku noonu bu ñu toogee ba jamono ji ñu ñuy wax nañu dafa amoon benn xaritam xaritam boobu a Aliou Ndiaye la tudd a aliyu Ndiaye man maa ngi koy lancé message wax ko ne ko euh, ñu ngi ñaan suñu borom moom bu fekkee dégg na message bi mu xam ne Abdoulaat mbokkam ñu ngi koy wër Abdoulaat ay xaritam ay jege jegeñaaleem ñëpp ñu ngi koy wër parce que bi mu demeek léegi wax dëgg yàlla yàgg na ñu ngi koy dagaan bu baax a baax lu mu ci xam mu mën ñu ko yeggee comme ni ko euh, Ibrahima waxee léegi numéro téléphone yooyu ñu joxe ñu jàppaleen ci bu baax ba xam ne même bu dul Aliou Ndiaye ku dégg message bi ma nga xam ne chef de village bi kat ak commune bu Réfane wax dëgg yàlla amati nañu beneen njàqare ak tiis bu dal seen kaw ndax seen doom bi nga xamante ne moo leen euh, dëddu boobaak léegi gisuñu ko mu toll ci at ak ay fan